asalaamaaleykum wa rahmatullah kon guddik ñaar fukkeel ga ak juróom-ñett ku ca julli ñeenti rakka bu ci nekk mu jàng ca faatixa benn yoon wattiini qul yaa ayyuhal kaafiruuna ak qul huwallaahu lu ci ne juróomi yoon bu noppee mu jéggal yàlla lu mu man kon suñu borom dana ko jéggal bakkaaram yépp kon fédération Tutank Touba Toscana ñoo leen di ñaanal koor jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.